bu ma tànqam lu bu leen ma tànqal bu leen xal ndoxum ki leen di tànqal cellantu leedoo bi seeni nopp ak seeni xol maw bi seeni bopp te génne seen wagaani xol ta taatan maam jaara waa melaku naanul yaa taw na bawal taw na kajoor taw njàmbur bawala ngaan ku mar ëllëg dóob jàmbur waaloo ngi walwali diggante waalo ginnaati gi jug doomi asa waalo waalo ngi walwali diggante waalo ginnaati gi jug doomi asa waalo jaaraama maamata ma fiiru naawel sa géej gi neex na waaju naan di farwel jaaraama maam jaaraama fiiru poroxaan na xoodo yoon noo ngi dëtëm ba coroxaan gànnaar dëtëm nanu banaan ba mandi yaay mbaambulaan sam do xajooti xandi ñépp a ngi mocc seen liggéey ba Saalum fuuta futeeku nañ sa ganna maalum yow saa ñub liggéey bi dem na penku dem sow baaraka lii dug faggu yokkal nga waa géej yokkal waa jéeri ba ñépp géejal yow ba yoofu jóori baykan nga bay nga bay yaa dig ndandi jigéen ñi nanu nga bay benindi jigéen ñi yaa doon soxna laa naan nga wum nga lam doom yi soxna moo tax jigéen ñi seeni doom ne meng di réere kay feeñ sa doom ni feng moo tax jigéen ñi seeni doom di xaadam di gontak ay xëy yow sa doom di yaaram yaa tax jigéen yi ñépp seeni doom seex bu dul ko nag yow ñoo ngi damm bay soox takkale laa jigéen ñi bu sa xaw naa raame ne ne yàlla ki yaani di tudd seen doom yi di tudd bamba ba njàmm kanam araam na ngir moom rek atan yan ba yow yaa di buur sa baali ñax koo càngaay naka nga ñëw sàng ñu jooñu ay gaay yaata jigéen ñi la ma soo ay mël fa nuy soli aw sa fu nu soob nu jël fa jigéen ñi dandargaa di wër doy soppeet góor ñu ji bee baax a joorof rapp yaa suturaal awlay dindi joote mbàkke ngi mel ne ndar jabaa ngi jooti laa fa gettu ndar taam si ndoode yun nga ko waa Tuuba ge deg ti ndoodi jaaraama maam jaara ko am jaaraama yaa ko waral sa doomari karaama jaaraama maam jaara ko am maqaama yaa ko waral keroog bisub xiyaama jaaraama maam jaara ko am ay xarbaax yaa ko waral sa dooma feeñal ak jaaraama maam jaara ku fi faj aajo waral sa dooma fasunu aajo jaaraama maam jaara ku am ideeyam yaa waral sa dooma am wilaayam jaaraama maam jaara ku am tey junni yaa waral sa dooma jooma we jinni jaaraama maam jaara sa arfu jiimi jox na la rafet yu yéeme jum nga jubal nga jàpp yow tey julli tey jàng tey joxe ba lee jolli te jikko yi may bëgg a lim leen borom poroxaan jigéen ñu bon ña ko yoroon yoroo leen daawu la jëw daawu la janni daawu la jëy doo jëy doo jaayoo ko jaaye ci jëy yaasoo bu yoonu janatu nayimi ku lari yol dem jaanu mag jëyimi saraagi taana baragal nga yàlla rafet rafet njortu taxam nga yàlla réewóora yóore roonu naa la daali dóoram bu dóoram mbaaji sa baali amoon nga fayda amoon nga fulla te amu fit am fit na nga am nga kersa am karaama am nga ngërëm yow yaay bërëm maqaama amoo kañaan guree di nombaale daawula kekkoon toog kiitwaali subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin